Ansoumana Dione maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. voilà Ansoumana Dione 10 euh, octobre bi euh, ñuy màggal bés bu ñu jagleel wàllum sante mentale ci àdduna bi euh, lan mooy say kàddu si bés bi. waaw Ndeye Comba. Euh, maa ngi am mbégte. maa ngi am mbégte. Mhm. maa ngi am mbégte euh, di waxtaan ak yéen si li jëm bëccëg bi xam se ni. àdduna yëpp moo koy màggal Sénégal nag desul ginnaaw ren euh, ñu ngi amal xew-xew bi ci Tambacounda. ci kilifteefu ñii kilifa yi xam ni ñoo ñoo yore mbirum wér yaram. waaye ñu ci beral loxo ñu ci beral koo xam se ni moom la ñuy wax le le le directeur de la lutte contre la maladie ñu koy wax le le docteur Moustapha Diop. wax dëgg yàlla muy def liggéey bu mucc ay liggéey bu am solo si lépp loo xam te ni jëm na si ñu amee feebaru xel jëm na si en tout cas ci feebar yi. Euh, ren nag euh, Tamba lañ koy amal euh, danañ fa amal benn panel boo xam ne maanaam boobu waxtaan boo xam ni entre ay kilifa la doon ànd ay experts la yoo xam ne pour que ñu xool naka la ñuy def ba ñu amee feebaru xel seen situation. ñu mën ko gën a ñu maanaam ñu gën mën a taxawu mais yaakaar am na yaakaar am na ndaxte ku ne xam na ni njiitu réew mi son excellence Macky Sall fi mbir mi toll loolu ñëpp xam nañ ko léegi nag lenn ma fees mooy ñu àndandoo nekk benn bokk day ak baay moo tax ñun ASSAMM ak bépp partenaire boo xam ne bu ministère de la santé daañu nekk benn nekk benn say dem Tambacounda waxtaani mbir mi pour que bu nu fa jógee lépp loo xam ne nii ci xalaat la ci xam-xam la en tout cas ñu mën ko mën a tëral pour que famille yi ñu am feebar en tout cas ñu mën a mën a toppatoo euh, euh, si ni mu waree. waaw léegi euh, Ansoumana centre Kaolack bi fan ngeen si toll est-ce que fonctionnel na est-ce que aussi xaalis bi leen nguur gi waroon jox jox na leen ko waaw wala déet fu ngeen toll si centre bi centre Kaolack bi daanaka sax commencé woon nañ ko waaye dafa fekk ne dañu amoon tuuti jafe-jafe ci wàllu médecin yi war a faj léegi nag loolu ci fii ay fan yu néew dina nekk suñu ginnaaw ndaxte. da euh, ASAM dafa war a signé convention ak faculté de médecine euh, doyen euh, professeur Bara Ndiaye jiite ko loolu bu ñu ko signé rek daañu am lépp loo xam ni soxla nañ ko ci wàllu médecin yi war a faj benn bi aussi mooy président Macky Sall la mu digg woon wax dëgg yàlla la mu digg woon def na lépp matal na lépp. matal na lépp lépp loo xam ne ci financement loo xam ne moom la doon xaar joxe na ko d'ailleurs sax centre bi ay ay fan a ngi nii ñu ngi koy defaraat ndaxte waaye kër goo xam ne toog na ay at yoo xam ne euh, doxul am na loo xam ne lu lu lu bëri dafa yàqu euh, fenêtre yi defar nañ ko bunt yi robinet yi euh, lépp loo xam ni mooy wàllu électricité fan yi nag dafa xaw a bëri ay ñax boo boo ñu war ko bay mais à chaque fois bu ñu bu ko waree bay rek suñu borom taw te foofu bon mi moo fa xawoon euh, bon mi moo ñu xawoon sol tuuti léegi nag il va falloir que ñu xaar ba nan nawet bi xaw wàññeeku loo xam ne dispositif la pour que ñi amee si mbedd mi ñu war taxaw parce que tey boo gisee sa Sénégal euh, li xew Sénégal moo xew Mali xew Burkina Faso xew un peu partout en Afrique même ci réew tubaab yi dem da nga fekk xam ne am nañ feebar xel di taxawal waaye fii ci Sénégal yàlla dimbale nañu ñu am kër goo xam te Euh, loolu moo ko tax a jóg ñu am njiité réew boo xam ne son excellence Macky Sall ay kilifa yoo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram ma ci cité sànq docteur Moustapha Diop di directeur de la contrat di ànd ak ñun bi en a mën a taxaw loolu nag mu nekk loo xam ne dina nekk mbégte pour képp ku yeewoo si réew mi ndaxte ku ne xam na ne ñu nekk si mbedd mi coono gi ñu woon euh, tar na ba fokk nag en tout ko. léegi Anso naka nga gisee euh, politique bi nga xam ne état wu Sénégal teg na ko si wàllum ñi am feebaru xel. waaw hmm. politique bi moom fa fa mu nekkoon euh, foofu la nekk ba tey sauf sauf li ci yokk rek mooy yaakaar am na loolu moom wax dëgg yàlla il faut mu leer yaakaar am na euh, war nañ fexe ba euh, boo demee région boo dem ci bi Sénégal nga fekk fa ay médecin nga fekk fa ay spécialiste loolu sax commencé nañ ko ndaxte fii ci Kaolack am na ci euh, am na ñoo xam ne tey jii bu ñu feebaree bu ñu demee daan lañ seet waaye si wàllu médicament bi boobu tamit état war na cee def ay jéego yu mag a mag a mag fexe it ba ñu former lu doy ci wàllu ñiy faj ci wàllu psychiatre ci wàllu psychologue loolu yëpp en tout cas yaakaar am na gannaaw ba ñu amee ay kilifa yoo xam te ni am nañu am nañu yéene euh, dëgg la euh, at yi at yi paas si ginnaaw euh, métti na xeex bi merop métti woon na waaye nag li neex ci àdduna mooy ngay xeex ba ñu dégg sa kàddu xam ne lii droit la bu demee ba kuréel gi ngànk wér gu ci àdduna bi wax ne ba mu leer maanaam mbirum feebaru xel dafa nekk priorité maanaam dafa nekk droit ci képp ko xam ne nii doomu aadama nga euh, xel mu sell xel mu rafet euh, xel mu dal dafa nekk droit ci bépp doomu aadama rawatina ki amee feebaru xel donc tey même adduna bi communauté internationale dem nañ ba xam ne lii lii adduna bi nekk jaaduwul parce que ay nit amee feebaru xel kenn toppatawul leen loolu nekk na loo xam ni en tout cas ñëpp ci war a taxaw te loolu euh, thème bi ren jii na ne santé priorité la te loolu suñu kilifa également xam nañ ko xam boobu ñu ko xam ñun moo moo moo seet suñu xol moo daal suñu xel moo tax léegi dañuy sant yàlla di ñaan loolu nga xam ne moo doon suñu yéene te muy seen yéene ñoom kilifa yi ñu mën koo taxawal pour que askan bi yëpp mën cee gis seen bopp. waaw Ansu léegi euh, naka nga gisee le fait que euh, ñi nga xam dañoo feebaru xel seen famille ni ñu a bees daal naka nga gisee mbir moom. waaw euh, njaboot yi ñoom famille yi kilifa yi euh, yàgg naa ko wax. ñoom ay nit la ñoo xam ni yu jàmbaare. parce que euh, nit ki soo balee sa kër ba mu set. sa mbalit loo ko dugal sa armoire da koy sànni ci mbalit ba da koy sànni ci poubelle ba oto yi ñoo jël ko dem turi ko fa en tout cas ñuy tuddee en tout cas les léegi ki amee feebaru xel su feebaree. amoo foo ko fajee nan nan ngay def. boo jëlee région bu mel ni Diourbel dans toute la région de Diourbel amul fu ñuy faje foofu am xel fii ci Dakar am na hôpital yoo xam ne sax boo fa demee am sa mbokk am feebaru xel fi ci mel ni sax hôpital euh, Nabil Choucair supposons boo boo boo fa yóbbee euh, boo fa yóbbee la amul fu ñuy fajee feebaru xel quelque structures moo am pendant pan principal euh, captage kat bu Thiaroye yi léegi rek dafay jaadu ñu fexe ba hôpital boo dem. hôpital booy dem Youssou Mbar Gare hôpital général bu Kaolack foo dem amee feebru xel normalement war nañu mën toppatoo loolu nag moom moom la ñu tuddee ñu jël les soins de santé mentale intégré ko dans le système de santé loolu bés bés bu ñu ko bés bu ñu ko réussir rek euh, su boobaa euh, nit ñi daañu mën a gis seen bopp donc famille yi famille yi dañ leen war a jaajëfal ñun bokkuñ si ñi naan famille yi dañ bàyyi sa loxo déedéet bu fekkee ne sa doom feebar na amuloo foo ko fajee wax dëgg yàlla musiba la famille coono gi ñuy dund man en ce la jot dama ko dund dama ko dund tey ñoo ngi wax borom cancer ñu ngi ñu si octobre ñu ngi si octobre rose ku nekk xam ne fu cancer li muy def mais tant que nit ki mbir mi dalul la mënoo xam lu ci nekk tant que nit dundul ak mbokk moom feebaru xel mënoo xam li nekk ci feebaru xel amul kenn ku am mbokk moom feebaru xel te bu sañoon di ko faj comme ni mu waree kon nag léegi dafay jaadu état euh, kilifa yi ñëpp dugal seen loxo ci xeex bi dugal seen loxo ci plaidoyer imaam yi jàngalekat yi ñëpp wax ci mbir ba ñu amee sabru xel set ak seen yelleef ñu mën nañ ko jox. Euh, euh, léegi euh, ñu bëri dañuy wax ni li tax ñi am feebaru xel lim bi tout le temps di yokk utilisation wu drogue bi si la bokk parce que gis nañu jeunes yu bëri léegi dañuy utiliser drogue est-ce que yow da nga koy dëggal. drogue bi. bokk na si li joxe feebaru xel dëgg la waaye drogue rek newu fi am na yeneen tey yoo xam ni am na yeneen facteurs yoo xam ni mooy tax ba feebaru xel gën a bari am na ñoo xam ni am nañ feebaru xel te mosuñu laal drogue cigarette sax ñu ko laal parce que àdduna bi moo jaxasoo léegi euh, accident yi bari yi euh, dëkk bi tar na euh, dëkk dund bu cher bi xool tey ji xale yaa ngi jël gaal gi di dem di xaru ci géej gi ngir lan utub alal donc àdduna bi tey fi mu toll mi ngi poussé nit ñi ñuy xaru te xaru boobu noonu daanaka ki am feebar xel rek moom moom mooy xaru ke jël gaal gi di dem naan Barça wala ba Barça kooku ñun dañ koy considéré comme ko amee feebaru xel i faut mu leer loolu ay junni junni nit di jël gaal gaal boo xam ne dafa lay leer ne fi mu jëm sa dee xel na si kooku képp ko xam ne euh, du dugg na ci rek moom moment bi mu koy def noonu dañuy jàpp ne dafa am feebaru xel euh, li fi nekk mooy euh, cause yi bari nañu waaye drogue bi tam ngi ci waaye nag nekkul drogue bi kese man jàpp naa sax drogue bi bokk de si si li gën a néew tey jii luy joxe euh, feebaru xel euh, déception yi bari na nit ñi tey àdduna bi tey ku ci nekk bopp sa bopp kenn toppatoowul kenn da ngay am sa jafe-jafe sax kenn du la faale da ngay am problème ñaar téeméer dërëm toog di nga xalaat nit ñi naan diw diw dafa dikkale wala diw temps yi kenn xamul lan la au lieu nga dem laaj ko lan la mu wax la soxlaam nga nga ci waaye déedéet nit ñi dañuy euh, dañ lay bàyyi ba nga sombe dans la folie ñu doog wax naan kii Euh, ba mu ngi nii wala itam boo nga dégg ñu ñëpp yàgg nañu dégg naan diw diw diw dafa dafa réew magum jëmb daawul wax mu jékki-jékki di saaga ay ndey wala daawul euh, euh, danañ génn tout le temps mu jékki di tëju kooku da ngay dem laaj ko lan la am na lu ko naqari am na lu ko métti nit dina am borom kër nit dina am soxna tàqali ko am loolu métti ko ba mu yëbee ko feebaru xel loolu yëpp ay mbir yoo xam te ni nit ñi dafay jaatu ñu koy ñu koy waxtaanee euh, Sénégal dañu am jikko boo xam ne am aada boo xam ne depuis sunu depuis sunu depuis su depuis depuis sunu maam yi la feebaru xel toppatoo wuñ ko. bu sa bopp di métti ñëpp nekk docteur bu sa bii di métti nekk ak docteur naa ne lii mais gisee nit ki xelam. xaw na manqué sax ñoom ñoo koy ràngat alors que am na noo koy dimbalee rek mu nekkaat ci société bi loolu lépp ay mbir yoo xam ne ni dañ ko war a seetaat euh, Sénégal bàyyi lépp ay di ñoo xam ni ba ñuy commencé am feebaru xel bu leen di bu leen tuuti rek ñu mucc waaye askan bi ci boppam su société ci boppam moo moo leen di puus ba am feebaru xel ba pare ñu beddi leen loolu lan lay nuru loolu kon kon dafay jaadu ñu xam ne nit amul lu ko gën a foor nit la yàlla fonk nañ fonkante suñu biir nañu bëggante nañu yërmante nañu dimbalante euh, bàyyi iñaanante yëpp dafay nekk yoo xam ne ni dafay concourir dafay favoriser li nga xam ne moom mooy feebaru xel parce que nit ki tant que mi ngi yëg ne nit ñi bëgg nañ ko nit ñi fonk nañ ko dafay bëgg dafay bëgg boppam mais su ko leeree tey ñëpp ko ñëpp ko beddi parce que liggéeyul parce que dugg na prison génn kenn faalatu ko dafay daal di ber boppam te ber boobu muy ber boppam moo koy jël feebaru xel yenn yi sax lu ci ëpp sax mooy war a en tout cas ñi xaru tey jii euh, chaque jour yi dégg ne diw xaru na diw naan na lii diw reere boppam tout ça en tout cas ay mbir yoo xam ni dañ ci war a dañ ko war a bàyyi xel. Euh, dernière question Ansoumana Dione naka nga gisee centre Delloosi bi nekk Rufisque si di di waaw centre boobu yéen taskati xibaar yéen koy wax man xawma ko man Ansoumana Dione li ma xam mooy li fi nekk di xaar Sénégal nit ñi nañu bàyyi ñiy fo ak ñiy caaxaan ñu leen jéem a dooleel Sénégal ba ki dem lañ am euh, forum Galien. loi daf ko tere nañu na nañu nga xam ne mooy essentiel bi essentiel bi mooy nañu fexe ba région yi ñu am ay médecins nañu fexe ba ñu amee feebaru xel ñu di taxaw waaye ñi nga xam te ni dañ cee uniquement pour gis leen ma ñooñu ñu xam ne leen te nag foo ak ñi liggéey muy ñoo niroo. voilà merci beaucoup Ansoumana Dione en tout cas ñu ngi lay remercier voilà di fàttali Ansoumana Dione yow yaay njiitu ASSAMM di association pour le suivi et l' assistance des malades mentaux